la suite ñu àggali suñu lu baax alors pombiteer yi yéen a ngi ci def seen ay commentaires sur la page officielle wax jaa ngi jógee euh, fu ne am na sax ñu ne euh, euh, pombiteer dafa niroog kanam maam góor jazaaka man leen maam góor bëri na histoire dafay xeex maam góor nag boo gisee pombiteer yi ñu la tuddee vraiment ki ko bind mën na tooñ dinaa la jox turam nga attaqué ko am nga doole soxor nga te da ngay dóore <laughs> alors bisu ke lan la gars yi wax ci. Euh, suñu suñu pombiteer yi. c'est xam nga lu ma jàpp depuis ce matin elle est sur Viber ah. internautes yi. les internautes yi disent quoi imagination bi ñu am fi ñu koy jëlee moom ma jàpp. ñu ne la am ci pombiteer yi. pombiteer yi déjà laisse-moi juste le temps <laughs> ma dugg si biir. alors na comme ne ko kii ak bijou soixante soixante <laughs> soixante quinze commentaires déjà. waaw. Euh, na bijou ak lay maye euh, bisimilah nee na exide exidex la ko pomme de terre di wër. zazabar mooy lan. tur la rek bi rek. non non. lay nuyoo xamuñu ne zazabar na ko fi ginaar lay ndiroon. Mhm. loolu ok ak lan. <laughs> kii nee na. ndeysaan. juge wala juge. xaw ma lan la wax. li kenn xamu ko. Ah. kii un petit rat et pour ay wéy. <laughs> Eh, bisu bébé mongole nag. <laughs> ponkal la. ponkal mute réew rek xam naa. poulet on dirait des abcès. bébé uh-huh. euh, sérieux <laughs> alors euh, comment enfin ça prend mhm. de vache. wow ok sori na. d'accord. <laughs> Euh, nee na pas ça ressemble à des petits rats. voilà alors Mamour Sarr moom dafa foog ni beñe la mais lii du beñe. wallaay <laughs> nee na beñe yi euh, euh, Pape Cheikh lay nural pombiteer la ah. bu ko xam naa <laughs> euh, sa kanam lay. aywaay Amane <laughs> nee na ça ressemble à des bébés mongolais. mais ça ça m'a tué pas gentil. alors Mariam Sarr qui fait ay tànku nag lay nural tànku nag. wallaay looloo baray y a beaucoup de commentaires que nous recevons à l'instant sur Facebook. hashtag bi ñu lancé selon. Amadou Bente Diallo nee na ça ressemble au visage de Kouthia. voilà d'accord bu ko ko caa jàppee dina ko. ka àdduna am solo démb sax maam Jaara dafa ñëwoon ci émission bi loolu moo taxoon ñu teel a jeexal émission bi mais àdduna amul solo Mado. <laughs> lu fi gis dafay jeex ah c'est ça alors pomme de terre yi moom la Alphie defaree gratin bi ñuy proposé euh, ce matin muy gratin dauphinois express alors gratin dauphinois express lu muy tekki ak nu ñu koy defaree et pourquoi nga choisir pomme de terre yi lu ngi koy en euh, fait dama doon dama dem ci marché bi. Mhm. di xool euh, di 17 pommes de terre. Mhm. donc ma gis. Mhm. donc da ngay seetlu ni euh, dafa am pomme de terre yoo xam ne c'est pour pour la. am ay pomme de terre à chair farineuse yoo xamante ni par exemple mën nañ ko utiliser pour suñu gratin yi ñuy defar. d'accord donc looloo tax ma tànn pomme de terre yi donc puisque amul woon yu ndaw moo tax ma tànn yu digg yi pour mën koo defar donc commencé naa xolli pomme de pomme de terre yi. xooli naa ko ba commencé ko daggat donc dañuy def euh, ay tranches. Mhm. yu yu yu fine mhm. plus fine maximum yu gën a fin mhm. pour mu gën a gaaw a ñor donc express boo déggee mooy dama koy précuire dama koy baxal ba pare togg ko ci meew bi ak sama crème liquide bi ma am su ma paree def ko ci euh, plat ak gratiner bi gratiner ko au four d'accord donc d'habitude dañuy jël pomme pomme terre yi def ko directement ci plat yi enfourner ko donc ça prend du temps donc su ma ko procurer togg ko pendant dix jàpp quinze minutes. Mhm. après ma finir ko au four. Mhm. mooy gën a gaaw. d'accord donc Pape Cheikh dinañ soxla meew. Mhm. dinañ soxla crème. en ceex. Mhm. dinaa soxla itam beurre Sofia. beurre Sofia mi fi nekk. mi fi nekk ak ay vitamines am. en vitamine A et E. ba pare kubéer yi léegi boo ko jëlee di ko dajale di nga mën a am ay millions yu. ay millions waaw yu Sofiex di may ah, pour tabaski bi mhm. donc dinaa soxla itam noix de muscade. Mhm. soxla poobar ak xorom. soxla tamit laaj parce que tamit laaj bi dina ci andi benn cours. nga def aussi ni fromage. Ah, c'est facultatif c'est facultatif bu la neexee nga def ci oui c'est au choix bu la neexee nga def ci fromage bu la neexee nga bañ ci def fromage. donc tey on va essayer de faire sans fromage. donc euh, dañuy mesurer sunu meew. Mm-hmm. donc pour grammes pomme de terre. Mm-hmm. dinañu soxla. je vous rappelle en même temps que mën ngeen woote ci téléphone bi 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 bu ko defee ngeen dugg soit ñu may leen euh, xaalis wala euh, xaru euh, tabaski sa yëfa e gi baax de ah, waaw waaw. damay taal gaz bi ah, bi xaw a tàng tuuti. ba xaw a tàng tuuti. nga yib ko ci. ma yib ko ci Pape Cheikh. d'accord donc. d'accord donc ma ci yibee pomme de terre bi. Uh-huh. donc au fur à mesure may dagg samay pomme de terre. Mhm. def ko ci sama euh, casserole. juste rappeler Pape Cheikh lu gën a assez important quand même ci recette bi. Mhm. mooy pomme de terre yi kenn du ko raxas. soo bëggee réaliser gratin bu jàpp pomme de terre bi duñ ko raxas. il faut avoir les mains propres. les mains propres pomme de terre bi moom la ñu soxla pour réaliser. Ah, maanaam boo ko xoolee ba teg ko doo ko dugalaat ci ndox quoi. comme bu ko xoolee ni ñuy defee frite di ko xooj ci ndox. soo ko defee sa gratin day raté. parce que da gis euh, effet bi ngay am liant bi ngay am doo ko am. soo ko ah, raxasee donc boo ko daggatee boo ko ko raxas effectivement nga koy raxas. donc soo seetloo pomme de terre yi dama ko raxas. ba pare waaw ba pare. Ah, waaw donc suñ ko xoolee. dañ koy def automatiquement ci meew bi kenn du ko raxas. d'accord donc ñu ajouté sunu noix de muscade. nañ ko ci moom tamit. ñu yëpp ci noix de muscade bi. d'accord donc di nga sentir léegi xet bi. def ko ci casserole xet bi jolli. Uh-huh. donc Pape Cheikh ñu uh-huh. pressé sunu laaj. donc rappelez que euh, crème entière bi après la ciy dem. donc damay bàyyi mu baax. 5 euh, jàpp 10 minutes. après ma rajouté ci sama crème. d'accord toujours surveiller quand même cuisson bi parce que xam nga meew moom fu mu nekk. Euh, bu baxee rek dafay donc de préférence toujours ñuy surveiller cuisson bi. di ko yëngal en def ci sunu xorom. xorom laaj et tout ça. ci biir me bi ngay baxal. bi may baxal su ma ko baxalee minutes ma dolli ci sama crème entière. su jàppee su ma dolliwaatee yeneen 15 minutes nag ba pomme de terre bi ma baxal mel ni luy waaj a ñor te mm-hmm. ma def ko sama plat à gratin. d'accord terminer ko au four. Mm-hmm. bu ma bu ma ko defee ci plat à gratin bi nag ci la beurre sofia bi di ñëw. Mm-hmm. parce que damay jël beurre bu am njëriñ ah. waaw riche en vitamine A et E ah. donc nag damay jël sama beurre sofia rek. bëccal ko noonu ci kaw rek. xaw ko enfourné Pape Cheikh bàyyi ko mu mu gratiné donc ma continuer dagg sama pomme de terre. Mhm. rajouté ko ci casserole bi. dolli ci sama crème liquide après ma gratiné yëpp au four. d' accord donc gratin dauphinois express euh, moom ngeen di euh, euh, lekk tey ah moom ngeen ko def seen ay biir kër parce que challenge bi fii ci télé bi à chaque fois confiné ak ay fii bu ñu ubbee suñu ay kër on tente de faire recette yu ñuy proposé et souvent c' est raté pour certains classe tonton Magui mais man mosuma def dara mu raté ci Alfie di proposé. d'ailleurs dina am jour boo xam ne dama koy togg 3 heures du matin comme ça ba indi leen ko fajar gi ngeen xam ni ndaanaan laa quoi waxuma la cordon bleu rek cordon euh, bleu bu ko gën a fort multicolore multicolore voilà c'est ça gàtt leen <laughs> ñu ngi leen di xaar téléphone baa ngi ubbeeku ba léegi ku dugg ñu may la vingt cinq mille wala cinquante mille ñu ngi nuyu waa France suñu xarit yi nekk dëkk bu ñu naan Nantes euh, suñu yaay Daba ak Cheikh yi euh, ñu ngi koy nuyu bu baax ak euh, borom këram di nuyu waa Nantes yooyu nga xam ni tout le temps dañuy àndandoo ak ñun. fii télévision Futur Média nga dem dëkk buñ naan Rotterdam yéen a ngi ñuy seetaan on vous souhaite une bonne journée monsieur et madame Seck ah Ibrahima ñu ngi koy nuyu ak euh, njabootu Sophie Diallo yëpp ak euh, suñu xarit yi nga xam ne ñu ngi àndandoo ak ñun fépp ci àddina ñu xool ku nekk ci téléphone bi alo allo Pape. waaw. ñu ngi ziar. ñu ngi sant yàlla bu baax. maa ngi xëy di la yooyu mbaa daay bëtt mi nga yor lu baax ngi bëgg di xool fajar gi. loolu. waaw noo tudd ak fooy wootee. Modou Dione it laay wootee. Modou Dia yaa ngi wootee. Modou Dione Modou Dione. ah Modou Dione yaa ngi wootee fan ci Italie. Bergamo. naka waa Bergamo. ñu ngi lay ziar say mbokk fu ñu dëkk fii ci Sénégal. man Touba Toul. ah waa Touba Toul nga. waaw am na ay mbokk si Kab Mbaaw la. am ngay mbokk si Kab Mbaaw waaw ah, séeréer pire laa moom. waaw séeréer séeréer séeréer cent en plus. Hmm. ça va. Saara li muy wax bëggoon naa ko kii nag waaye damaa déglu na ma moom. nga ni. Saara li mu doon wax. waaw ko doon déglu ne damaa déglu phase bi man. waaw Kiara Kiara waaw ndeysaan dégg nga li mu wax. waaw dégg naa ci tuuti rek. waaw wax na dëgg de. waaw wax na dëgg moom. yenn saa yi yenn saa yi Euh, ku am jabaru euh, euh, tubaab du dox yenn saa yi mu dox ah. waaw loolu la kay. waaye sant yàlla rek sant yàlla rek. même gars yi wax ñu ngi def le 18 octobre ñu ngi def benn benn bésu tubaab yi jublu fii di traité ñëw quoi. d'accord mais yow Kiara daf la intéressé. non nga rek li nga la wax quoi. la dëgg la dëgg la waaw mënoon naa dugg ci émission bi rek. waaw wax nga dëgg wax nga dëgg et puis bi mu développé dafa am am solo moom waaw. dafa am solo naka foofu Italie mbaa yooyu dañ ci jàmm bu baax rek. waaw ñu ngi fi jàmm parce que fii gars yi moom di góorgóorlu parce que comme tubaab yi ba pare. waaw xam nga dañuy walbati ñu gis ñu leen pratique yi diine bi carrément ñuy mujj ci tubiwaat quoi mais fi mu ne dañ cee taxaw même ñu ngi leen defal benn test am na bés bu ñu leen defal la duñu octobre bi di ñëw sax. wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. waaw d' accord nañu en tout cas yéen ñi nekk bitim réew. Euh, yéen yéen. Sénégal senegal ngeen bëgg senegal ngeen fonk. dañu lay bàyyi rek euh, nga euh, jox message sa mbokk yi nga xamante ni ñu ngi lay euh, ñu ngi fii ci Sénégal nga nuyu di ñëpp ñoom ñëpp. ok nu ñu tudd maa ngi leen di rawatina sama frère Mbaye Kane. Mbaye moom mu ngi fii Sénégal. mu ngi si Kambaaw mu ngi si Kambaaw d' bi. télévision Futur Média. ñu wax lu ma maa leen seetaan saa bu ma yeewoo huit heures moom maa leen doon leen seetaan. jërëjëf yaa yi sax yaa yi. saa yoo xëyee saa yoo xëyee seetaan kontaan nañ ci yow. waaw waaw. kontaan nañ ci yow jërëjëf John nga ñu waa Italie yëpp bu amee keneen ku nekk ci téléphone bi ñu jël ko ah fàtte naa ko wax bu amee mbokk fii sax Sénégal mu jox ñu numéro ñu may ko xaalis wala ñu jox ko eh, xaru tabaskeem mën nga woote waat ah yow mi nekk foofu te Italie ak eh, suñu yeneen xarit yooyu nga xam ne ñu ngi àndandoo ak ñun Alfi yaa ngi dagg say pomme de terre ñu xoolaat keneen allo allo. allo waaw. waaw. Pape. allo waaw. dëgg man allo waa laa comprendre ba tey allo waa. allo Pape Seydou Diallo. waa. <laughs> allo. ça va. la. Fatou Diop. Fatou Diop. waaw. Fatou Diop def. maa ngi jàmm foo dëkk. yëmbal yëmbal benn gaat. yëmbal benn barak. waaw d' accord naka waa yëmbal benn barak. yaa ngi ci sant jàmm rek yow ngeen bu baax. yar nañ bu baax. àndandoo ak ñun. waaw très bien Fatou Diop dëkk yëmbal benn barak neel benn. benn. yeewu leen may na la juróomi junni. ah kontaan naa. neel ñaar. ñaar buñ la wooyee ci kanam may la xar tabaski bu la bett. <laughs> waaye buñ la mayee xar bi la ba ciy may. loolu ciy may. ah li mu bëgg. li mu bëgg ci xar bi. waaw te loo ma yéene ci xar mi. xanaa la fa la ci miche bu baax. kese. kese. cal genn bi nga may jox pooju xar bi wala bopp xar bi. déedéet faari. ah faari. faar yi damay jox. waaw d'accord xam nga xam nga xam nga xam nga xaritam dafa am valeur ah te fi mu nekk nii gars yi ñu ngi jaaxle. Hmm. yow d'habitude looy xëccoo ci xar. lu may xëccoo ci xar. waaw. faar yi rek. ah. faar yi. faar yi ngay xëccoo. waaw d'accord ñu ne taawu booy moom euh, leneen la ñuy xuloo ci xar. lu lan. ah xam nga dara. ta ah. taawu booy dañuy lu ñu lu ñu gën a xëccoo ci xar. temps booy. temps booy bu ñu nekkee booy ci kër gi. tabaski waaw tabaski bu jotee. Euh, c'est pas les côtelettes. d'accord moom tubaab la d'accord moom il faut les côtelettes ah. c'est quoi. les côtelettes ah. d'accord euh, Fatou Diop. merci bonne journée dégg nga. ok merci bu ñu jël sa téléphone. d'accord. merci. allez bonne journée ah. <laughs> allez euh, ku ne xam ne li ñuy xëccoo ci xaar quoi non mais euh, attends ah, mais vous savez vous savez parce que loolu loolu on dit souvent que jigéen du ko lekk. Ah, jigéen du lekk loolu kon lekk. waa donc jigéen du lekk côtelette. ne ko dañuy lekk côtelette Chérif Chérif dafa bëgg a dugal quoi. <laughs> dañuy lekk côtelette kon lan la bon. en fait d'habitude recette bi Alphie xam na hmm. parce que <laughs> buñ ko. dañ koy xar en deux parties. waaw waaw ah. sax ko grillade ko. suufu xaar dañ koy grillade sax. dañ koy grillade en plus waaw dañ koy grillade. Ah, parce que d'habitude euh, tabaski bu jotee <laughs> euh, ñun dañuy xëccoo quoi dañuy xëccoo oh, euh, partie boobu nekk ci xar bi. kon tamit loolu la bëgg. si ku ma bëgg naa ko. <laughs> <laughs> mais pourtant on peut dire à la télé parce que ñun dañ koy wax ci biir kër yi. c'est quoi. ah ça commence par bon dama koy bind ci Facebook bi. waaw ah, dama bind ko ci Facebook bi. car. Euh, tu as fait une faute. ah j'ai fait une faute. <laughs> non mais ah. Je t'es pas là les vendredis donc tu peux pas comprendre mais ça commence par X. <laughs> alors partie la bu am solo euh, ci xar et que d'habitude euh, xale yi moom la ñuy gën a <laughs> souvent pour la yu jigéen yi on a dit que jigéen du ko c'est ce qu'on souvent mais euh, euh, vraiment euh, mooy partie bi gën a baax ci xar bi selon nous ah partie bi gën a am valeur ci xar peut dire xam sur le plateau partie boobu nekk ci xar bi ñu tudd ah.